wàccuwaay. dëgg la la laaj lan mooy taxawaay bi tey fii si Washington. yee Washington suñu teewaay fii mooy. yee seen teewaay nag léegi nag ñu invité ma pour man maa ngi fii maa ngi Californie. léegi ñu invité ma pour ma bàyyi lépp ñëw. yee ñu jëndal ma billet mu ñëw ak sumay famille. Mm-hmm. ñëw passé ko ak ñoom quoi ndax ñoom ñooy suñu famille kon loolu mooy suñu teewaay fii nii.

noo ko gisee. non macha allah. <laughs> Sénégal forever. noo gisee communauté sénégalais bi. fii hmm? ni ñu dëkkee macha allah tooguwaay bi. macha allah macha allah. ak loo war a mën a wax sa mbokk waa Sénégal war leen ñun nan la ñuy dundee. waaw li ñuy dundee rek li ma ciy wax rek mooy ñoŋ ñoŋ ci. ndax lii mooy teranga. Hmm. te nañ gën a yëgoo gën a jàppante gën a solidarité. Hmm. te en même temps ñun ñoo ngi fii di pratiquer MMA bi. te bëgg nañ. loolu moo war a suñu teewaay pour dugg suñu mbir mboq yi pour maanaam ñun bu ñu xewlee tamit ñoom suñu mën a teewal ñu teewal ñu ñi ñu mën a faaloo ñaanal ñu nañu ñaanal uh-huh. mais li ma mun a wax rek mooy ñoom bëggante nañ soppante nañ te yàlla na yokk amiin wasalaam ah duñu duñu bàyyi noonu parce que mbër nga il faut nga wax ñu tuuti ci NMA bi bi ngay wax parce que peut-être que ku mel ni man wala mm-hmm. keneen xamul NMA bi lan la pour ñu mën cee mën a jàpp. mën cee gën a taxaw waaw dafa nekk benn benn benn benn xeex la boo xamante ne. Mhm. yee maanaam gars ke koy pratiquer fii si Amérique. Mhm. yee mu nekk benn sport boo xamante ne macha allah quoi. Mhm. yee te ñun mën nañ bëree mais am na yeneen xeex bu ci nekk. mel ni ay ay muy taay. ay jiu-jitsu ay yeneen xeet ay boxe xeex yooyu lañ jël boole ko ay bëree. def ko benn xeex. dëgg la yee loolu mooy MMA te instant bi man maa ngi ciy yëngatu maa ngi koy pratiquer ndànk-ndànk. Mhm. mais aw ma lu dul samay mbokk. moo tax lépp lu may def rek damay bëgg. Mhm. ku mën Baye Fall laa. te mhm. damay bëgg a saakoonteeg nit ñi. Baye Fall jàpp si loolu dong la. dégg naa ñuy wax sa diggante combat ak euh, Ama ndax lu taxaw la wala taxawul fu mu toll. non non amaguma la nag. amagoo combat nekk si li mu war a nekk kon nag yàlla na yàlla def nga am combat ci année bi champion bu mag nga te xam nañ ne roi des arènes bi jomb la te xam nañ ne di nga ko am macha allah Tourki Ndaa kontaan nañ